alhamdulillahi waxdahu wasalaatullahi wasalaamuhu ala man la nabiya baxdahu saydi kulal arabi wal mawlaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf xam nga sëñ Moustapha Ndiaye alkarim sunu borom danoo boole ñu bokk Cheikh Moustapha bokk sëñ Ahmadou Muxtaar mi ne xalifa Daaru Xuduus woote bis ñu teew ci ngir suñu digganteeg Cheikh Moustapha waaye suñu digganteeg sëñ Moustapha ndax moom tabarkàlla bëgg na Cheikh Moustapha ba ràññi ko ci ba bari xam ni adresse am mooy ku bëgg mu Moustapha loolu nag bu ko taalibe amee nga di mbokkum taalibe ni moom mu woote bisub Cheikh Moustapha dañ caa war a teew sant la ko Cheikh Moustapha mooy sunu teewaay ci bis bi macha gis nañ ne Baye Ndongo ñu bari bu ñu xewle bis yu mel nii fu ne dina am directeur société yu leen jëppi dina am ministre yu leen jëppi dina am ñu leen jëppi ndax dañuy defar carte soutien kii ci kii nag moom day defal lépp boppam ba pare ne kaay ñu santale ko yàlla santale ko Serigne Touba maanaam Pastef gi mu wane koñ bi mu dëkkit ñëpp gërëm ko yemul ci euh, jox leen ci xéwalam mais da ci jubbanti ndaw ñi ban ànd ak ragal yàlla gu mat sëkk waaw xam nga Daaru Xuddus moom daam li ñu leen tàggate li ñu leen tàggate mooy jaamu yàlla ak liggéey ku liggéey mën a sàmm sa ngor boo doo lëjal kenn kon nangoo jaamu yàlla kenn du la xeeb yooyu ñaar bu dajee ci moom mën naa woote bis bi fekk nag la mu jàppan ba bis bi ñëwagul te mooy wéetal sëñ bi di jaamu yàlla di ko liggéeyal moo ko jàppale mën a mucc yu bëree bëri loolu rek la fi mu fi war a nekk rek la nekk Cheikh Moussa Mbacké ku koy tuddoo da nga war a nangoo liggéey jaamu yàlla am fula day dimbali. jërëjëf kooku mooy Baye Ndonga di ku am Pastef di kuy defar ci làmp fal ñu ngi koy nuyu bu baax ak soxna jaar ak yëpp nawloo xam-xamam ak tamit képp ku réer ku koy déglu moom du la jay du la tiital mais dina la wax dëgg te yàlla tax moo tax ñu nawloo xam-xam bu baax a baax mbay donc loolu fu toog dañ koy seede kon il faut ñu seede ko sa sa xam-xam jërëjëf sa maandu ak sa dëgg alhamdulilah def ci yoon jërëjëf loolu daal ko amin amin loolu bég naa ci bég naa ci loolu jërëjëf jërëjëf kon Lamp ngeen xam ki am bu baax ngeen gën ko fonk ndax euh, réew mi ñoo ko war a gën a fonk Baye Ndongo li muy liggéeyal diine ndax am naa fekk du ko déglu te du wax